léegi. oui par rapport euh, tout à l'heure je pas très d'accord sur le fait que euh, toutes les femmes sont dans la transformation wala dafa saturé. oui pas très d'accord parce que moi j'ai eu à avec des coopératives de femmes à l'intérieur du Sénégal que ce soit à Kaolack à Saint-Louis entre autres régions mais li ma seetlu mooy c'est-à-dire valorisation de nos produits ñoom yi ñuy defar mooy problème bi parce que du respecter les yi nga xamante ni c'est en vigueur du ñu xam fan la ñuy dem pour am l'emballage qu'il faut. pour mën ko sax jaay fi ñu dëkk seen koñ ba mën ko Fra par exemple mooy c'est le numéro d'identification euh, déjà que le ministère du commerce euh, octroie mm-hmm. ak euh, les numéros là qu'on que l'on met sur les produits comme l'eau problème de labellisation donc je pense que moi j'ai eu à former des des femmes sur les techniques de vente sur le marketing digital entre autres je pense que c'est ces aspects complémentaires ak auquel il faut former les femmes pour permettre leen ñu mettre en valeur lu ñuy jaay. mais en vérité ak consommation locale. parce que aussi loo si mënti dégg. am na ñu bëgg cere. dëgg les femmes les femmes mhm. sont dans dans le couscous mais est que. pour les ko est-ce que n'importe quel euh, araw ngay jënd pour def ko fonder sa kër je pense que aussi boo jënd di nga jënd lu dal sa xel je pense que si euh, euh, nos dirigeants. de parce que là je j'enlève complètement la casquette politique les tutelles li ñu war a gën a def mooy accompagner les femmes dans cette valorisation mm-hmm. parce que ñoom li ñu produire doyul sénégalais yi de mm-hmm. bañ ko exporter dans la sous-région bañ ko exporter au niveau international donc je pense que aspect formation boobu lañu ñu war a valoriser. pour que les femmes la ñuy transformer mu jariñ leen jariñ fi ñu dëkk jariñ seen njaboot et que ñu. di consommer local utiliser aussi les, nouvelles technologies pour. une bonne communication pour vendre tout est dans les techniques de vente sur le digital. la la communication digitale. un aspect important.